asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñuy seetaan ñu ngi leen nduyu di leen sant fu waay mënti nekk ñu leen wax ne ñu leen di indil incha allah bientôt ay émission yu am solo yoo xam ne dalay xamal sa diine si biir weeru koor bi kan lay xewee nag fii si Tektal TV kan moo leen koy présenté Seyda leen Samb incha allah ñu ngi ñaan ñëpp nañu xaar te préparé te toog. te seetaan li nga xam ne incha allah bientôt fii si biir weeru koor bi lay xewee fii si Tektal TV ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah